nga xam ne mooy waxtaan li nga xam ne mooy lii nga xam ne ndaw yi jël nañ ko muy habitude boo xam ne xamuñ ko woon si réew mi ñii jël di ka li nga xam ne mooy kilifa diine di teg xam ne mooy wax wax yu ñaaw yi mooy kilifa diine yi en tant que euh, ki nga xam ne mooy Sénégal noo gisal lool. asalaamaaleykum ñu ngi leen di fay si seen tur ak seen sant ak ñëw bi ngeen fi ñëw ndax lii rafet la ñun amuñu lu dul kilifa diine yi amuñu dul ñoom ñooy suñ royukaay ñoom la ñuy jaaxle dem ci ñoom ñaan leen kon ku leen di saaga rek ñun du leen rafetlu duñ ko rafetlu te bokkul ci yar ak respect saaga lu mu dugg rek yàq ko ndax doomu julit warul saaga doomu julit waxul warul xastaate li jullit da ngaa war a fekk sa morom julit teg ko kom julit wax ak moom waxi julit wax ko yar ak sutura rekki teggin waaye fi ne li am ci boppam ci àdduna kenn xamatul li kenn xamatu ko ca Senghor ba ci Ablaye Wade ba ci Macky Sall ba ci Abdou Diouf lii lépp musul am lii nag xaj na day saytaane su dugg ci doomu aadama yi rek waaye day yàlla nañ ci yàlla musal ak yeneen tamit nañ safaa ndax amuñu lu dul sëriñ sëriñ da nga koo war a wormaal dem mu ñaanal la te leen li nag ak ëpp la ëpp gooxaay gi ëpp na bopp jaaxal taalibe yi lu nu métti la ba kanam yàlla ak yeneen bi ndax ñun amuñu dul xalifa yi xalifa yi rek lan am kon li nu man ñu wormaal leen jox leen seen cër jox leen seen gëdd ndax ku jaaxle fi ñoom nga jëm président bu jaaxlee fa ñoom la jëm keneen bu jaaxlee fa ñoom la jëm kon léegi dañ leen a war a wormaal jox leen nin moom te yàlla ak yonent bi tax ak Serigne ndax ñoom xamuñu lu dul defar kuy defar nag yow nga bëgg fa yàq loolu nag ñiy def loolu saytaane lañu tànku saytaane lañu taxaw saytaane tànku saytaane boobu mu taxaw nag yàlla mi la ñëpp doole yàlla na ko yàlla saafara ci kartanu yàlla ak nabi Mustafa ñu ñëw ba léegi li nga xam ne depuis li nga xam ne mooy màggal Kazu Rajab dégg nga ki nga xam ne mooy porte-parole ki nga xam ne mooy murit yi mu génn wax ki si ki nga xam ne mooy sunu maam fee fee nga xam ne mooy sa Léona Niassène dégg nga kàddu yi mu yëkkati keroog ba mu waxee ba pare mu ne xam naa su ma génnee gars nañ ma saaga waaye ku ma saaga baal naa la tey ñu dëggaat ko ki nga xam ne mooy fee xam ne mooy laayeen tey en tant que ki nga xam ne mooy kilifa en tant li nga xam ne mooy sénégalais est-ce que lool xam o xamoon nañ ko bu njëkk loolu moom kenn xamu ko xam nga loolu moom li tax mu wax la ni moom bu génne mbaa ko saaga moom lépp day rafetal loo ko waxit day faxas rek jàll looloo tax mu waxee noonu waaye doom doomu aadama ñëwewul a jàkkaarloo moom saaga ko kon loole muy wax pour bëgg lu rafet la rafet lu rafet loole mu bëgg ma ba di ko wax kon na ci doomu aadama xool xool ca mag ñu jëkk ña doon def fexe jàng alxuraan fexe seen bopp yi ñuy def ci lu baax ak xol yi ñu fóot ko ba mu set àndandoo bokk ndey bokk bay te rafetal ndax lii am nii baaxul nawet baa ngi nii dara amul gerte gi daa màgg ban maroma màggee ñebe ji màgg ni mu war a màggee dugub ji màgg ni mu war a màggee amul dara te loolu lépp yi ñaaw yeeg yi bon yi la rek ba di koom te xeetoonte ak bañante loolu moo war a jeex Sénégal mosu fee am kon nag suñ président mi xaay moom la fi yàlla baax noo na dolli muñ na dolli muñ ku jiitu ku ne am ku la bëgg am ku la bañ ñi ko bañ bari ne waaye day xam ni lii la yàlla dogal ban koy fal ñëpp danoon makee fi ne jël ko waa ci Ablaye Wade teg ko fi kon bu ndee ba di ko bañ na teg tànkam bi mu ko tegi te fexe masla ak ni ñi andi jàmm ak salaam réew mi na fi jàmm am ak salaam loolu la ñuy ñaante saaga yi suñu borom dakkal ko doomu adama yi dakkal ko seen bopp tout tranquille bëgg nañ ko ci kàttanu yàlla ak yonent bi Mustafa yan kàddu yi ngay dénk yi nga xam ne mooy mooy ndaw yi comme sama génération ak ñeneen ñeneen li nga xam ne mooy xew si dëkk bi tey fu fuñ tourné rek violation dafay xew fuñ tourné ñu taal pono taal en tant que li nga xam ne mooy Sénégal tey looy euh, looy wax li nga xam mooy ndaw ñi. ndaw yeet muy benn ndaw bu mu mën di doon kenn ku ne sa kart électeur nga bu la Macky Sall safee bu toogee nga wateel ko bu la Sonko safee bu toogee nga wateel ko waaye yàq sam réew ak rayanteeg saaganteeg jam sa morom ak yooyu taxul doxalu lum réew am réew li koy doxal jiboo yor saw carte bu watee jotee nga duggoo ca mbañ gàcce wateel ko nga bëgg jàmm ni ñooy man loolu laa leen di conseillé xeex beeg rayante bi jërul ñàkk solo ñun ñëpp joo bokk ndey ak baay Sénégal mun ñu koo xar lan fa fekkoon suñu maam yi ba léegi nañ ko jéem a jëme kanam waaye buñ ko jéem a arrière ndaw yi nan xul bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi te futti ku liggéey bu watee jotee ñu dugg mbañ gàcce wateel Sonko wala ñu wateel Macky Sall wala kenn ko fa yàlla teg ko waree yor réew mi yor ko Abdoulaye Wade ba mu melee nii ju guddiyee dañ ko fa ni ko wateel Macky Sall Macky Sall jël réew mi koy léegi bu demee nii ëllëg bu nit ñi bëggaatee réew mi watel Sonko Sonko gañe wala Macky Sall gañe jàmm ni ñëw waaye mu gën xeex beeg yàq beeg tojante bi loolu amul njariñ amul njariñ sunu alal dong la ñu toj ndaw yi ñoo moom réew mi ëllëg ñoo ko moom tey kon nañ jéem a góorgóorlu bàyyi xuloo bi bàyyi saaga yi bàyyi dóorante bi loolu amul njariñ loolu nag laa ca lu may wax sëriñ bi jërëjëf waaw lu ci juum nag maa ngi jéggulu te xam ni doomu aadama matul ndax kii fi yàlla ba muy sun njiit moom nan ko jàppale ba kera muy matal dem Ablaye Wade dañ ko jàppaloon ba mu matal dem jàmm ñooy moo gën xeex bi xuloo bi wasalaam. si réew ah eh, ñi nga xam ne ñooy saaga ñi nga xam mooy kilifa diine yi eh, ak yi ñaaw yi nga xam ne moom la ñu teg si kilifa diine yi tey soo ma si noonu digal ak yan kàddu nga si nga ñu siy soñ auzu billahi mina shaytaani rajim laa xawla wala quwwata illa billah bismillahi rahmaani rahim waaw ah, ñoo ngi leen di sant di leen gërëm dafay am loo xamante nii génn bi ngeen di génne ni di laaj doomu aadama yi seen xalaat loolu bu fekkee dina jàll fa muy war a jàllee dina mën a dimbali sax ñeneen ñi ci des waaye man am na loo xamante ni nii dama koy blâmer dam daf daf may naxari sama xol. adduna euh, bi dañoo toll si jamono boo xamante ni doomu adama ak lu mu mën a doon bu demee san yar ak teggin du yegg fu mu jëm surtout ndaw ndaw rawatina ndaw ndaw yarak ak teggin rek moom mooy li nga xamante ni moom la mën a jël def ko yoon moom la mën a jël def ko galaaj. te dama yaakaar ni waxuma la sax kilifa yi nga xamante yi nii ñoom dañoo jaayante woon jaayante goo xamante yi nii kenn mën laa expliquer na mu demee ndax bu ñu waxantee dëgg te yàlla suñu borom rek a tax tey fii kum fi mën doon ku nekk position boo tollu ci fitna kilifa diine yi ngay xalaat kilifa diine yi ngay xalaat la moo tax ma wax la loolu bu dee politicien bi nga xamante nii réew mi la soxla wala goxam la soxla wala ndombu tànk la soxla ci réew mi ci kilifa diine lay dem toog mu ñaanal ko toog yooyu ñuy toog ci ruumu kilifa diina yi loolu noonu buñ fa amul woon yaakaar duñu fa dem kon bu fekkente ni dëgg la si ñun te ñuy waxante dëgg yàlla tax kenn ku mu doon ku nekk rek war nga mën a jóg défendre kilifa diine yi. waaye kilifa diine yooyu noonu est-ce que ñi nga xamante nii ñoom lañuy ñuy wooyee yi jox nañ leen cër bi ñu leen war a jox ndaxte ñoom nañ nañu bàyyi xel lenn ak seen njàng yooyu noonu ñu yor àdduna bi dafa am fu mu toll. kilifa diine yi dafa am loo xamante nii yàlla suñu borom da koo def ci moom te yàlla rek a tax ba pare ñoom kilifa diine yi dañ leen ëppam njàng fop ëpp leen ay diplôme ba pare yàlla suñu boroom jox leen loo xamante ni tamit bañ koy am te duñu nelaw dañ koo dem jàngi ndax fii kilifa diine rek ngay gis mu lay mu dégg anglais dégg français boo waxee moom arab nga yaakaar ne kii arab rek la jàng ñoom ñi nga xamante nii doxuñu si yooyu adduna bi rek moom moo leen soxal ci bu nasaraam bi rek nga leen di fekk te loolu sorowul demul fenn waroon na ñoo mën a dimbali nag taxaw am position boo xamante nii dañuy xam ne dëkk bi dafa amul lu fi nekk loolu fu nekk moom mooy lan jàmm ndax képp ku mën doon ku nekk bërëb ba ngay liggéeyandoo bu lépp dajee mat te jàmm amul doo liggéey kon yàlla nañu yàlla suñu borom dooli jàmm dañu ñëw tuuti li nga xam ne depuis maako kasari jëpp dégg nañ ay kàddu du jóge fu ne ki si mel ne suñu suñu maam sëñ Bass Abdou fee nga xam ne mooy sële woon na ñaseen dégg nga ba ba xalifa bu génnee dégg nga lu ñu wax ba dem barki dem moo njaay ki nga xam ne mooy discours bi nga xam ne sunu maam waa kër laayeen def nañ ko seen discours te keroog jàpp nañu ma maam si ñas ba mu génnee ba mu waxee def na ah man ne maa ngi wax te dëgg rek a neex waaw xam naa su ma demee nañ ma nañ ma saaga te ku ma saaga baal naa la tey kaddu yooyu noonu soo demee ma jub si réew ñun surtout yi yan ñan kaddu nga yan yan gis-gis lañ si nar a man li ma xam tëggam ko man doon toog ay yenn mag ñuy waxtaan may dégg ndaw lu bëgg a posam sa bopp del topp kilifa diine wala ku la mag ngay wax lu ñaaw ci kawam ñooñu mën nañ laa baal sax yàlla suñu borom duma la mën nga wax kilifa lu ñaaw moom mu baal la jéggal yàlla tax waaye yàlla suñu borom duma la ndax dafa am loo xamante nii du ay caaxaan ñoom nag wax yooyu noonu ñuy wax noonu nañ ñuy dimbali ngir yàlla teg seen tànk ci loolu noonu kon ne di wax ndax wax jooju noonu tey kilifa gi nga xamante nii moom dañ koy xool ndax lan am na lu tax ñu koy xool kooku bokkul ak ak ki nga xamante nii lu ndaw moom moo ko soxal ñoom ba tey ñoom kilifa yi du ma digal genn kilifa nag ndax am ndong su ndaw amul lu muy digal kilifa waaye kon boo nekkee sa kilifa sañ nga koo ñaan li ñu leen di ñaan mooy seen kàddu googu noonu musula tuut te du musa tuut ci àdduna ñoom ñii fi nekk di xëccoo réew mi ñoom la seen kàddu doon kàddu goo xamante yi nii jëmul fenn ndax lu ñu wax tey bu subaa ñu génn ci kilifa diine yi li ñuy wax lépp benn kàddu la ni ñuy fexe ba réew mi am jàmm ñuy fexe ba réew mi baax ñoom ñii rek ñoo fiy wax di or nit ñi ñoom politiciens yi ñoo fiy wax di or nit ñi ñoom ñoo fiy nekk fii di di sànq alalu askan wi ku ko jegee sànq ko ku ko jegewul di ko jéem a yóotu boo ko jegee kenn xamul loo cee def bu ëllëgee parce que dinaa dugg foofu tuuti tey lépp li nga xamante ne ay xale yu ndaw lañu ñun ci Ablaye Wade lañ commencé watee mais lépp luñ fi gisoon Ablaye Wade doon ko def mu ñuy naxari tey gis nañ président bii fi nekk tey di président Macky Sall di ko def mu ñuy naxari lenn rek la ko Ablaye Wade ëppee woon sens bu dëkk bi daan am fu muy toll moom jàmmi dëkk bi da gënale gënal intérêt boppam te kii fi nekk nii man gisuma fenn fu ko jàmmi dëkk bi gënale intérêt boppam loolu nag nañ ko waxtu dee waaye ñuy waxtu dundee te waxtu dundee sax nag la ñu bëgg mais li wér te wóor mooy moom na xam ni Sénégal dafa am lu mu fi def te loolu mu fa def jëf la kon waru koo yàq ci ay signature ak ay ak ak ay wax waaw am na ay dossiers yoo xamante ni nii moom bi mu waxee li mu wax ñëpp dégg mun da cee teg concam kon na kon ne teg dossiers yi ci concam rek bu fekkente ni nii teg conc ci dossier mooy tax dëkk bi am jàmm na kon ne jël dossiers yi teg ci concam dëkk bi kon na am jàmm bu fekkee dëkk ko ñoral bu fekkente ni nag boppam moo ko ñoral ah moom na xool rek waaye nag lu mën a xew yàlla mii may jàmm yalla ñu may jàmm te bu yàlla paree pour ma ñu jàmm kuñ ko bëgg a xañ kooku noonu moom moo dul am jàmm waaye yàlla dinañ may jàmm tey ñu bëggoon a xam sa kàddu gu mujj rek li nga xam ne moom ngay denk li nga xam mooy ndaw ñi dégg ko li nga xam ne mooy euh, ñi wooy politiciens yi li nga xam ne mooy euh, yan déggat ñi nga xam ne mooy sénégalais yi. waaw euh, man wax ndaw ñi dina ma neex ndax la ma waxoon ca départ ba ci loolu laay ñëwaat amul benn gàllaaj wala benn alal wala lenn lu gën a baax ci ndaw am yar ak teggin yar teggin rek moom mooy li nga xamante ne nii bu bu ndaw xëyee ànd ak moom ku ko bëgg a toroxal yàlla bañ ndaw loo xamante ni nag xalaat nga ni leneen mën na laa may jàmm lu yar ak teggin yaa ngi nax sa bopp. nañ delawaat yaraat suñu bopp te xam ni xale bu mu doon bu nekk lépp loo def say waajur di la fekk ak say mbokk di la fekk bu fekkee loo xamante ni erreur la am nga mille sens pour ñu mën laa comprendre waaye bu fekkente ni nii da nga ko teg ci xamadi ak ak jubadi toroxal nga say waajur ndax dara gënte nekk gàcc ñu teg la ci bërëb say waajur fekke la fa xam ne yow lii nga nekk nii du dëgg du yoon yàlla ñu ci yàlla musal musal ci mboolem jullit ñu ndaw ñi encore foofu ñuy gën a xam ne dëkk bi ñun ñoo ko moom ñii fi nekk di ay mag dañuy dem te ñun dañoo nekk ci position bu métti ndax dañoo war a mën a jàppale mag ñi ba pare xëcc ndaw ñi loolu nag waxee la déggin lay laaj bu fekkente ni nii da nga toll ci benn position bi doon xale bu góor wala xale bu jigéen nga toll ci fanweeri at ak nangam jàpp fukki at dafa am lu la war say waajur yaa leen war a taxaw jarbaat yi nga yor ak say doom ak say rak yaa leen war a taxaw yow mi nekk ci dëkk bi ci digg bi daraaye waru la ndaw bu xamee li ko war position bi mu nekk mooy position bi gën a métti ci àdduna ndax kenn bëggul say mbok say kilifa di am problème kenn bëggul say mbokk tu tànkee di am problème te jàmm jooju noonu ngay bëggal say waajur loolu nga bëgg war a bëggal waajuru keneen lu baax loolu noonu nga bëggal say tu tànk loolu nga war a bëggal tu tànki keneen salaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaw dama la waaw ba léegi ñooñu toog ki nga xam ne euh, mooy Youssou Fall nekk fee nga xam mooy Medina TV HD kenn du ko présenter si même réew gannaaw ma la nuyoo Youssou fay naa la maam Cece taali euh, borom daaru maa baax di nuyu di nuyu ñuy seetaan bu baax a baax di ñu bàyyi xel yaa jaajëfal bu baax a baax te xam ne fi ngeen ko teg nag foofu la quoi yéen a ngi def euh, lu am solo ci réew mi yéen a ngi béy seen waar mais nag nag lu ne ñëpp la lu ko nee ngi ci fi ngeen ko teg foofu la bu leen ko teggi nuyu naa ñëpp di siyaar ñëpp jaajëf Cece waaw Cece man nag damay faral di gis loo xamante ne nii même bu dul kàddu yooyu sax loo xam ne mi ngi bëgg a ci internet bi ci waruñu ko bàyyi noonu muy que kilifa kilifa la donc dañ leen war a jox seen matuwaay kenn ku ci nekk rek boo yëkkati ay kàddu yu di ko teg ci euh, deru kilifa da nga xool xam ne ki ngay waxal nii sa morom papa la mat na la papa donc tey itam kilifa la te bu doon sa papa doo ko wax même bu doon sa yaay doo ko wax nañuy nañuy nañuy yokkaat yar bi te xool li ñuy wax ak bu baax a baax donc léegi ci réew mi dañoo toll foo xamante ne nii nañu waxante dëgg fii képp ku ne képp ku ne gisu rek am na melokaan na dafa wax ne nit mënul na mu waxee na mu jëfee la mel te wax ju bon dëkkul fu mu jëm fu mu jóge la cosaanoo donc nit ñi nañu yaraat seen bopp fii képp koo gis képp koo gis mun a nemm ne dégg ñuy tagg ab yaram am na lu nekk ci moom lu mu dëxëñ mais daam loo xam da koy jombale boppam mais en tant mais mais kilifa yi dañuy wax benn wax boo xamante ni wax bi yow yow da nga koy dégg sax déggin boo xam ne nu la nekk koy déggee waroo ca teg lenn lu ay wala ngay ay saaga wala wax ju ñaaw pour lan ba pare ñu bàyyi noonu gis réew ñoo ko moom du nangu kenn ku koy yàq wala mu koy taal nañ waxante dëgg gis ñi nekk di wax yëpp di woote ay xew wala ay kii ñoom ñëppam kenn ku ci nekk sa bopp nga fi nekkal donc nañ yokkaat sunu yar li nu moom nan ko jël xam la la fii dëkk mag ñu baax la sëñ Touba dafay bind bàyyi jëf ñu gis wax ñu dégg maam li maamu laay noonu eh, Baye Niass noonu Bou Kounda kilifa yooyu suñu mag yooyu ñu am ba pare ñu defar dëkk bi taaral dëkk bi yàlla di ñu suturaal jàmm am déggoo fi suuf suy demee boor déggoo fi aw ay déggoo fi dara lu jàmm ak salaam mais dama ne moomu ñu na ñoo kat yar te bàyyi saaga yi bu nit waxatee ñu nekk ci internet bi di saaga internet bi li ci nekk mooy Macky Sall président de la république moom moo ci war a wax internet bi li ci nekk ci lu bon dafay dafa bari col yu bon yu nekk ak jël say numéro sànni ci internet beeg naan fi laa dëkk ak ah mais mais mais mais mais ci li man lii man dama tiis sax quoi ñëw tuuti li nga xam ne depuis maagal li nga xam ne mooy maagal Kazu dégg nañ ko fu nekk li nga xam ne mooy kilifa diine yi génn wax ba barki démb Ndiaye moo si mujj fee nga xam ne mooy appelu laayeen dégg nga discours yi nga xam ne moom la sunu maam ju tedd ga ku sell ga yëkkati wax mu ne voté du ay wàcc sa terrain bi di xeex day voté sa mbañ gàcce ba la yeewu sangu ba set dem voté ji tey nit ñooñu nga xam ñooy woo jeunesse bi li nga xam ne mooy ñu taal dëkk bi tey looy wax loolu. dama lay wax benn affaire Sénégal dañoo yomb a nax xam nga dañu ma nax parce que man man man tey su ma neexoo ma génn léegi def comme gars yi wax lu ma neex. def lu ma neex te li may wax ak ni li may wax li ma neex neex rek gaw xool gaw ma ko xam nga parce que Sénégal yi ba bari na ñoo xam dañoo xiif bari na ñoo dëkk bi amul dara comprendre nga léegi nag boo doxee ci xelu nit ñi waa am looy ñoddi nit ñi gëm la quoi topp la nga yaakaar ne yow la déedéet xam nga lan la da ngay jëf ñu gis ñii fi nekk ñëpp yam mbele mbele coow la man kenn wunu ma nax man su ma leeral ne su ma demee wooteel kii jikko makkee mais mais mais nañuy xoolaat ñi nga xam ne yàlla jox joxagu leen réew mi nañ xoolaat seen bopp xam nga tax yow yàlla joxagu la réew mi ngay xuloo wala ngay xaste wala ngay saag wala ngay wax ju ñaaw mais bu la joxee réew mi yow yaakan réew mi jaamu lañ ciy wootee gis nga Macky Sall mi fi yàlla teg nii man faru mag moom man Macky Sall man faruma ak moom xam nga tax ma ñàkk far ak moom moom nag moo fi moom la fi yàlla teg moo que dama bëgg mu gestuwaat Sénégal fii am na ci ñoo xam ne dañu sonn tam topp benn rythme bi rek xuloo bi xeex bi kaso gi xamba kii wax na kee noonu la kee soppe la bu mu topp loolu nit ñi dañoo xiif nit ñi dañoo mar Sénégal fii man su ma nekkoon président damay toog ba doyal te kenn du ma fi jëlee laaj ma lu tax Sénégal ban problème la am mooy bu ñu xii nañ fexe bu ñu xiifee lekk bu ñu maree naan kereel ndaw yi nag lu ñu mën a jàpp liggéey pour am dara loolu ku ko defal Sénégal fii da ngay toog ba doyal problème boobu rek la ñu am et puis santé bi instant bi mooy loolu ñi koy jooytu bari na comprendre nga. cëcee Sénégal lañ nekk réew mi ñun ñoo ko moom nañ yokkaat suñu yar bi suñu mag ñi baax ñi rek lañ bu ñu kenn jaxase maa ngi déglu benn kàddu boo xam ne nit ñi di ci wax mais ku tedd kooku loolu mu wax noonu dara nekku ci dane ñun ay mag lañ te wax nag dégg lay laaj ñun ay mag lañ ki fi yàlla teg mais dëgg la ki fi yàlla teg kenn mënul muus ka muccet man sama papa bi ma jur kenn mënut a wax wax ba mu nekk tey président Macky Sall moom la fi yàlla teg bu ko fi yàlla war jigee jëlee daf yi jógee parce que yàlla dafay jëlee keneen andi ko fi moom mais nañu koy rafetal moom tey jii moo xam Ousmane Sonko la moo xam Bougane la moo xam mi Dias la moo xam comme ci diman di doon ku ko yàlla tudde ne ëllëg yaa koy yor yow la ko yàlla di jox waaye comme pour l'instant Macky Sall moo ko yor nañ ko gunge 2024 soreetul ku ne xam ne ne Macky Sall moom bokkatul 2004 soreetul ko fi yàlla teg ñu ñu ànd ak moom xam ne kii fi yàlla teg mag ñi ñooy foofu la ñuy waxee ñun mag ñi kii lañ mën a àndal waaye yéen xale yéen xool loolu neex na yéen xale yéen xool ku leen neex ngeen ànd ak moom waaye loolu jar na saaga ak commentaire rek a wax man bi may duggee ci commentaire li ma ciy gis ay saaga mais mais pour lan mais pour lan loolu lañuy ñëw rek joxaale li nga xam mooy sa kàddu gu mujj mooy looy dénk li nga xam ne mooy jeunesse bi dénk li nga xam ne mooy ndaw ñi ndax dañoo jëm ci le 2024 mu nekk euh, moment historique mooy 2024 kat ku ko dégg sa xel lay dem si manifestation léegi looy dénk li nga xam ne mooy ndaw ñi balaa la 2024 élection yi ndaw ñi xam la laa leen di dénk dëgg neex yàlla bu ñu waxantee dëgg dégg nga munoo foo tourné ñu ne la sa foot mi setul nga bëgg faa tourné ne saabu ba doyul nañ waxante dëgg ndaw ñi ñoo moom Sénégal ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom am nañ droit ànd ak Ousmane Sonko ñi ànd ak Macky Sall am nañ droit ñi ànd ak keneen ak keneen am nañ droit ànd ak keneen mais dama ne lu ci mën lu ci mën di am nañu xool li nga xam ne moo arrangé réew mi muy jàmm kenn ku ci nekk 2024 nga ànd ak ka nga nga gunge ko bu ko yàlla mayee ndam nga xam ne yàlla may na ko ndam bu ko yàlla xañee jox ko kenn nga xam ne yàlla xañ na ko waaye nañu maytu saaga tey nañu maytu xasante yi nañ maytu waxante lu ñaaw te jar dara jaru ko fii koo xas ku nekk rek jàppale kee xas sa bopp nga xas parce que jàppale kee xas sa mbokk la koo saaga noonu te yéen nag saagakat yi ci nekk nekk ci internet bi bàyyi leen di saaga man dama leen a yërëm yéen saagakat yi xam nga tax ma yërëm leen mooy que dama jàpp ne loolu nattu bu leen yàlla teg la ñoom natt bu saaga yi man mii du ma saaga taxul nag mën a yéen di gën a bon yéen ñi saaga mais nag góorgóorlu leen wàññi ki ngeen di saaga soit mën a nekk sa baay mën nekk sa yaay mën nekk sa mag mën a nekk sa maam donc te àdduna ñun ñëpp ñoo ko bokk céecee yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla nañu yàlla muccal yàlla nañu yàlla musal yàlla muccal ñu nag bu baax a baax a baax ñun ndaw ñi nañ tàppe xolit nekk benn ñii ñuy xeexal muy kii xeexal Macky Sall muy kii xeexal Ousmane Sonko wala kii xeexal Bougane Gueye Dany wala keneen ak keneen gisoo ci ñooñu ñëpp kenn koo xam ne bu ñu xeex jotee sa doom day dem wala sa jabar wala sa yaay wala sa papa ñun ñooy dem di xeexi ak a xuloo waaye waaye nañu def ndànk te yokkaat suñu yar bi jox kilifa yi li ñu moom salaamaaleykum wa rahmatulah jéejee maa ngi lay jaajëfal nag bu baax a baax. doomu nag ah, gannaaw ñu la nuyoo ah, wax ngeen ko xam Mouhamed Mouhamed bu Sonko te dañ lay nga nuyoo waxtaan li nga xam mooy mbokk réew mi. waaw Thierno maa lay siyaar maa lay ñaanal jàmm. tey Mouhamed en tant que li nga xam mooy partisan ki nga xam mooy Ousmane Sonko. tey gis nañ li nga xam mooy kilifa diine yi génn wax ñi nga xam ne ñoo leen di saaga tey gis nañ ki nga xam ne mooy maa ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo xam ne mooy Léona Niassène ñu may élage maa ngi ne man wax na waaye am na ñoo xam ne suñu génn nañ ma saaga ku ma saaga baal ma baal naa la en tant que nga xam ne patriote tey loo loo gisee mbir moom waaw loolu moom lu ñu mën a wax bëriwul dëkk yi moom kilifa diine man gisuma ku leen saaga comme neex na mën nga wax na dañ may saaga mais fii moom gisuñ ko saaga ki saaga moom gisuñ ko fi mais nag Sénégal moo demee noonu quoi xam nga dañ ma saaga dañ ma saaga da wax ku la saaga mais fii man taxal naa nekk saaga amu fi quoi ok. dañoo gis ne lu si ëpp seen njit lañuy seen njit teg tuuma gi ñu ne ko fekkee réew coono ut jooru woot xeex jooru woot xuloo ba si discours bi nga xam ne moom la ki nga xam mooy suñu mbokk laayeen yi def noo jàngate li nga xam ne mooy discours boobu. waaw discours boobu moom ko kilifa la noonu la mën a waxee mais président Ousmane Sonko xam ne moom nit am yar la nit ku baax la nit kii la quoi mais nag moom kilifa gi am na droit waxee noon mais képp Ousmane koo xam ne du saaga kenn te du saagalu kenn démb wax na ko ci kiyam ne leen man képp ku saaga bokku ci man kon loolu lañ mën a jàpp mais ñi def seen profil di moom bu la neexee nga foto Ousmane Sonko ci profil di saaga kon kenn mënu ci dara ñu baax nag Ousmane Sonko saaga duñ saagalu léegi nag kuy saaga nag kooku yow la concerné ñi la ñu jéem a xam ñuy saaga ñan la état loolu lañ fi tegee bu dee doo ñuy saaga ay nit te loolu neexu leen ñoom na xam na ñuy saaga ne leen jéem a jàpp point. Ah, dañoo gis tamit li nga xam ne si discours bi ba léegi laa ñëw dégg nga dem ba Ousmane Sonko toog ki nga xam ne mooy porte-parole Laayeen dëkk ne eh, li ngay du si tali bi nga koy utee du si xeex ngay utee maanaam da ngay bàyyi ba bés ba gars yi la sa carte loolu nga soxla ndax réew nag réewum jàmm la te noo gisee kàddu yi nga xam ne moom la porte-parole bi nga xam ne mooy ni jox ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. waaw kooku moom loolu la a wax mais président Ousmane Sonko ku ko xam na xam ne nitu jàmm la jàmm lay woote ci jàmm la dox mais nag du seetaan ñu koy rendi ci noonu affaire bu jaree résistance dañ koy def ba mat sëkk ndax fa mu bëgg a yegg lañ bëgg lañ bañ mu yegg moroñ bu koo kale loolu mënu nekk réew mi kenn moomu ko dañuy fal ñëpp ci démocratie kon bu ñu bëggee jëm am fu mu jëm ñu bëgg koo kale am na droit de résistance te résistance dootu mu woote ci lañ koy fekke boobu jël mais du toog këram ñu rendi ko loolu ñu ko nangu bu wootee résistance dañ koy fekk ci loolu ba mat sëkk yan kàddu ngay ngay dénk li nga xam ne mooy jeunesse bi ak lan tànk ngay ngay dénk ki nga xam ne mooy seen njët kii nga xam mooy Ousmane Sonko. waaw jeunesse moom li ma leen dénk seen avenir dafa nekk en jeu buñ caaxaanee ñu yàqale Ousmane Sonko seen avenir yàqu na loolu mooy ñu xam ko képp kii doomu Sénégal day xale te bëgg avenir ëllëg te ba nga jug taxaw préparé wu te xam ne affaire bi confrontation lañ jëm dañ koy def mu jeex ñu faree bor mais duñ nangu affaire bi sa waaye ñu ñu sacrifié ko mu jeex ñu new loolu duñ ko nangu ñu ñëw tuuti est-ce que lii nga xam ne moom la ñuy tuumal ki nga xam mooy seen njët di Ousmane Sonko tey jii est ce que loolu di ko gàllankoor li nga xam ne mooy fii ak le 2024. non non non ban tuuma tuuma amul dëgg la wax Ousmane Sonko jiñul kenn dara Mame Mbaye Niang la Ousmane Sonko wax loolu ma Ousmane Sonko waxu ko rapport ICF moo wax ko Ousmane Sonko da répété loolu kenn mënu ko jee toppee dara waaw saa ci biir pelan nag amul fenn. ok waaw. Galas Baye Mbène ñu bàyyi ko mu nuyoo rek Galas nga naa la nuyoo di maa ngi leen di delloo ziar moom Thierno Ibrahim di leen màggal bu waay waaw ñu ngi siyaar bu wér de yaa ngi ci biir Baye Fall yi de waaw. tey dañoo ñëw waxtaan li nga xam ne mooy par rapport li nga xam ne mooy li xew si réew mi ah, ñi nga xam ne ñuy jël li nga xam ne mooy di saaga ñi nga xam mooy kilifa diine yi en tant li nga xam mooy Baye Fall en tank que li nga xam mooy murit ndax woote wu lu doon li nga xam mooy sa mooy sa sëriñ tey la an kàddu yi nga ñuy andi si loolu. wa kàddu yi ma ciy wax de mooy maanaam ñiy saaga kilifa diine yi pour man dama jàpp ni seen yar moo des rek parce que nit ki bu fekkee ne yow saaga sa kilifa doo saaga sa waajur wala saaga kilifa yi jàmbur man noonu laa ko jàppee rek aussi tamit kilifa yi tamit ñi nga xam ne ñoom tam ñoom lañ def suñu yaakaar aussi nit ku nekk war ngaa wane cër boo xam ne ni nit du am ci yow sañ-sañ ba di la dépassé ba di la wax yenn yi man noonu laa ko gisee rek ah ci sama jàngat waaw parce que dañoo xool depuis li def boobu léegi même discours la kilifa diine yi def ku si mel waa waa Kaolack ku ba barki dem moo njaay li nga xam ne mooy laayeen ni tey ñu ne réew soo ko du du li nga xam mooy taal taal li nga xam ne mooy dëkk bi ndax carte moo la fal carte moo lay moo lay te tey discours yooyu noonu nga dégg noonu en tant que li nga xam ne mooy citoyen tey loolu ñu si mën a ànd. ah waaw man de li ma ci gis mooy maanaam nit ku nekk rek xam nga fi nga féete parce que mbir yi moom du xëccoo du xuloo du xeex te jii ku ci nekk am na koo faral. waaw même sa sëriñ bii sa sëriñ tamit du la ne carrément wooteelal diw wala diw yow yaay xool ki la doy rek nga vooteel ko man loolu laa gis mais ay saaga ay wax loolu réglé wul dara parce que ci nekk jéemal nekk citoyen ba bu ëllëgee nga mën a jël sa carte électeur dem xool ki la nga vooteel ko man loolu laa gëm. tey doo gis li nga xam ne euh, ki nga xam mooy Mahi Niass ku ko dégg xam na ko moom doxal na diine ji nitu diine la te ñu dégg ko li nga xam ne ba mu waxee ba pare sànni ay kàddu mu ne xam naa maa ngi wax waaye su pare paree xam naa ne gars nañ ma saaga. tey kàddu yooyu noonu ngay dégg ci li mooy si réew yéen kàddu yooyu nan la lay def. ah waaw xanaa naqari ñu rek ah mais loolu yëpp nag tam réseaux sociaux yi la rek parce bu fekkee ne yow toog nga xool li la gënal nga def ko bañ a concentré ci benn réseaux sociaux am na yoo xam ne doo ko dégg mais man nag dama gis ni rek maanaam ci yarin bi la rek nit ki daal niñ la yaree rek moom ngay doxalee mais ku attana taxaw tiim sa kilifa diina di ko saaga kooku man dama yaakaar ne ñàkk taalibe la rek mais du leneen waaw man loolu laa ci gis. en tant que li nga xam mooy jeune te yan kàddu ngay dénk li nga xam mooy ndaw ñi ak yan kàddu ngay dénk ñi nga xam ne mooy wa wa politiciens yi. waaw ah, kàddu yi mooy dénk ndaw yi mooy ku ci nekk nga jéem a fexe xam sa carte électeur jéem a def sa bopp citoyen bi ci des mooy liggéey parce que liggéey bi moom yow yaa ci jiitu mais doo toog di xaar kenn pour ku sa liggéey parce que kilifa yi tamit yow yaay jëm jug uti mais doo toog naa nay dama bëgg a dama bëgga a loolu laa gisee. waaw euh, en tant que citoyen daal ak jeune mooy nga jéem a fexe am sa carte citoyen am sa carte waaw bu boobaa nga xool ki la nga votel ko liggéey bi tam yaa si jiitu ñu fek si la ci waaw laaj amoon lu mu ciy wax quoi wasalaam jaajëf maam Thierno Birahim waaw papa ganaaw ba la nuyoo di la siyaar te ñu bëggoon a fekk la fi nga xam ne mooy Petersen ñu laaj la li nga xam ne nan nga gisee li nga xam ne mooy jàngatu jàngatu li nga xam moo xew si réew waaw jàngat bi nga xam léegi moom moo xew ci réew mi ci li nga xam ne aussi moom laa ci gis te ko ci moo di dëgg-dëgg mun ne ko Sénégalu léegi gi ak Sénégal gu njëkk am na différence bu rëy rëy rëy li tax ndaxte xale yi ñoom seen bopp bu fekkee ni dëgg rek li ñuy wax xale yi am amuñu yar am ñu teggin waaw loolu nag euh, li ma yaakaar yi moo ko waral ndaxte xam nga jamono ji moom dafa dafa am ay changement yoo xam ne dafa am léegi ndax changement yi am léegi mooy dafa am loo xam ni dafa am ta am fi woon te kenn xamu ko woon euh, ñu commencé ci li nga xam ne aussi moom mooy euh, télévision yi fi xew ak it aussi audio yi nga xam ne ni naa ngi koy jàllale ci biir euh, whatsapp yeeg ak portable yeeg yu mel noonu yooyu bari na loo xam ne moom moo andi yàqu-yàqu yi nga xam ne moom moo am fii ci Sénégal léegi waaw loolu ma daal loolu laa ci mën a waxagum ba ci kanam. li ñu bëggoon a xam li nga xam ne ah, la depuis li nga xam ne mooy maagalu li nga xam mooy Kazu Rajab maagal bi nga xam ne mooy Kazu Rajab dégg li nga xam ne mooy kilifa diine yi ku si mel ne ah, sëñ Bass Abdou Khader muy porte-parole Mouride génn na wax ak si mel ne ki nga xam mooy ah, suñu maam Ali Niass dégg nga lu mu wax ne wax discours ba pare ne. wax naa waaye xam na su ma génnee dinañ ma saaga waaye ku ma saaga baal naa ko démb tamit nga dégg ki nga xam ne mooy sunu maam Fiesa Laayeen tamit ñu ngi déggaat même kàddu yi tey ni nga xam ne ñi nga xam ne ñooy saaga kilifa diine yaw en tant que kilifa tey noo noo jàngatee li nga xam mooy mooy bés. waaw mais ni nga ko jàngatee mooy àddina gu yàqu rek